kii mooy yaa baax yaa gore. tur ay Wouly yaa baax wasaare. lam ji léegi mu ngi wasaaro fépp mu ngi wasaaroo Amérique di wasaaro États-Unis d'Amérique ak ATM di wasaaroo Sénégal ak Djily Kébé ak euh, Basir li neexul jël lam wa wasaare ko ci réew mi ak bitim waaye li ci wasaare di sant yàlla. di jur Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Mbacke sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarama Axlaa di sant Sénégal gépp waaw. tey ñu ñëw fii ci xew boo xamante ne ki ko xew la mooy Ngañ Lo. Ngañ Lo ku xam Ngañ Lo xam sa digganteeg moom. lan nga mën a wax ci Ngañ Lo. waa ngañ dafa baax xam nga nit. kenn du ko xeebal sa bésam. man fonk nit. bu bees aussi dafa am solo ngañ dafa baax borom Nimsaat boutique xam nga ne Nimsaat boutique vraiment ma am mu ne ma sa alimentation ci wàllu booy entraîné protéine yi nga war a jël pour di récupérer créatine créa crin lépp sirop yëpp maa koy yore dil la sa dil loolu xaay bu bare bari la loo tax vraiment ngañ mun ma koo fay kon bu xew xewlee damay bay lu ma jàpp lépp ma ñëw parce que nit ki nga xam ne da nga am combat mu ne la ñëwal ma jàppale la tooy yi may jox dafa seeran ah. dafa baax ci man day toj sa biir gën a parce que combat bi dama ci entraînement entraînement yu mité mité mité miti foog may récupérer kon ngañ loo borom nim saat boutique bu xewlee te ngente lu ma jàpp dama koy béy kat ma ñëw kat lii neexul. ngay di ngente te ngay ma ñëw waaye lii neexul ngay ci ngente. waaye wuli dama bëgg a xam ba xam maas bii nga yor. may woo nii kan allo. ah doo ko wuy de doo ko wuy doo ko euh, dama bëgg xam Sénégal yi dañ ma déglu ku ma woo damay woyu waaw loolu moom dëgg la. te numéro bu ñu la woowee da ngay wuyee macha allah ndeysaan yow maanaam maas bi nga yor tey ñu gis ko nga yor ko est ce que liiru jaan rek ngay waaja saa Thiès ba. li la waxoon rek keroog ah. waajuma liw jaan kese ak Sa Thiès ah. parce que dama jël rawaas maanaam dama bëgg su suma koog liiru jaan ñu xam ne wuli mi warta bi rek liiru jaan moo ta combat bi waajuma liiru jaan kese maa ngi laa si après personnellement combat bi waajuma liw jaan kese damay waaj liw jaan di waaj Sa Thiès parce que dama bëgg bu ma daan mu may ma rawaas parce que dala gay dem ne woo woote na Zik FM ne na moom ak Sa Thiès ñooy andi liiru jaan Tapha Tine aussi woote ne ñun Bawol sans frontière yëpp ñooy andi wulli ñoom Cheikh Diouf sama mag nga mooy vice président Bawol sans frontière ñoom John wuli de kewel mbër yi Bawol yëpp a sama ginaaw ñu may contact loo suñu écrit géej naa fa mais comment bi ñoo mën a ñooy ànd ak yow Gambie kewel wuli de Buur Sine Cheikh Diouf waa Bawol sans frontière yëpp Tapha Tine mbay guy gi Ndiaye Tine bépp mbër bu nekk Réfane da ngay ànd ak man damay dañuy luyee kaar fii dem Gambie parce que combat bi saison grand combat combat bi xeeb ma ko moo tax entraînement yu wër laa ciy def ba pare ñi ma ciy jéegee jàppale dafa bari Gambien yi nekk Gambie ñoom Djibil Touré Djibil Touré mu nga Gambie Ousmane Diop mu nga Gambie Ndongo Cissé mu ngi Gambie BMG ñoom Njool waaye xos Xadijatu Sow Abdou Dramé nekk États-Unis d'Amérique Abdou Dramé dama jox xaalis doomu ndeyu Babacar Sarr borom Mbirkilaan combat bi xool lii nga dara Mbirkilaan ca Babacar bu ngay dem Gambie yëpp a ngi ci sama ginnaaw. damaa gis fu ñu la dëkkee bu keroog rek nga commencé woote commencé gërëm combat bi da cee ñàkk jàppale. wala combat bi am nga ci jàppale. parce que bugguma nag yaa liiru ak lu munti xew. bugguma dégg kenn parce que liiru mu ngi taqal promoteur bi yow yaa ngi taqal yeneen yi ay. Balla Gaye ah ah. ñoom ñoo man combat bi boo gisee ma ci woote dama am combat. ñëpp ànd ak ma jàppale comme ni ma wax léegi quoi ay Babacar Sarr Mbirki laal Abdou Dramé waa ñi xam nga di bëre Gambie kilifa ne Gambie ñëpp jël du son ànd yow ne ñoo lay jàppale loolu dafa neex ñoom Abdou Dramé dibal Touré Balaka Papa Touré bi ne état li fa am ci ay jàppale actuellement nii macha allah moo tax liiru jaan pare wu ma ko moom kay at dina moori dina mooli xam nga dina moori bu ànd ak buuli benn affaire la moo tax Sa Thiès na pare pare moom lay waajalaa ah. waajalu ma liy jaar kese. mais mais nag wële amoo benn contrat bu la ak Sa Thiès damay ragal li ngay wax ni est-ce que après du la indil problème parce que Sa Thiès lu mën da koy jàpp ci combat bi wala tiitoo Sa Thiès. loolu laa bëgg jàppale yàlla moo gën a wóor man yàllaa ma jàppale ragaluma Balla Gaye ragaluma Sa Thiès yàlla suñu borom moo may may te mooy maye dama bëgg Sa Thiès ak Balla Gaye jàppale li lu nu mën dama wax lu baax la lu leer Sa Thiès na ko jàppale lu mu mën yàlla jàppale ma maam ndam ci kaw liu jaan jël Sa Thiès waaye combat bi dañ doon dégg bu njëkk ni nga mel ak Baye Ndiaye ni nga mel ak Aziz Ndiaye ni nga mel ak famille Baye Ala Ndiaye bi yëpp mais leen ci combat bi tuddoo leen taasoo lan mooy sa problème ak famille Baye Baye Ndiaye non Aziz maak moom ñoo bokk ndey ak Baye dem Zik FM rek bi ma fa masa Massata Sata Ndiaye woote na xamal ñu ne wuli sunu mbuli la mais bu dee dafa nekk géejuwaay li ñu daan nekk dama koy même mettre à l'aise du ma ko bëgg sax di ko tudd mais Aziz xam na man xam naa seen grand frère Massata Ndiaye Massata Ndiaye mi nga xam ne mooy xalifa bi dafa woote xamal ñu ñun ñun wuli sunu wuli la Baye Abdou Ndiaye rakam Sooro Abdou Sooro Aala Ndiaye Badou Aala Ndiaye waa kër Aala Ndiaye maa ñoom ñoo bokk ndey ak baay mais comme que li luy jaan mu ngi nekk géejuwaay dama koy mettre à parce que jaan daa gaaw diw saytaane la du Aziz kilifa la dangay bañ bañ mu ne ko saytaane la parce que lilu kon nag man mu ne da ngaa saytaane moo tax combat bi Aziz dama ko si mettre à l'aise parce que kilifa la dama mu yàpp ko si naan Aziz Ndiaye dafa saytaane yooyu yow mi sax nee na sa saytaane nga jamay ke saytaane la Lamine ñëpp si léegi ci moom loo tax léegi dama koy mettre à l'aise mais géejawaay ñi fa jàppale bàyyi na sëñ moo kéemaa na nga fa sama sëriñ daaw da sek jaw daaw da sek man la jaw bu bala gay amet ay dara géejawaay maa ko moom lat dëgg deux sama xarit la gi les deux Elton sax suñu woo ma ñu waxtaan di gërëm aussi ñi may jàppale Cheikh Ibrahima Keita roi d'Afrique roi du Mandé combat bi combat am la ma ne man diili yàlla suñu boobu damaa booleeg nit yi yàlla ñu may ñaanal ay nit yàlla ñu may ñaanal ragaluma balagay la ragaluma Sa Thiès dama ne ñoom nañu ko andi. wala fi nga taxaw wóor na. lancé appel sonné ma nañu ko andi ma duma ko jël Sa parce que dama amee rawaas. Cheikh Ibrahima Keita sama sëriñ sama xarit di ma ñaanal di ma bokkal Masila joob Masila Diop attention daa am ak ñoom xam na ñoom xam nañu Masila Diop bala ngay xam nga yow Masila xam na Masila Diop maa ngi koy gërëm sëñ Mor maan bu Géejawaay maa ngi koy gërëm bàyyi jili borom léegi léegi daa koy tiliru jaar bàyyi jili Mbakke borom léegi léegi daa koy tiliru jaar Cheikh Ibrahima Keita roon waa daf daa koy tiliru jaar Massila Diop kenn waxaale wu ko mun na koo rey macha allah di gërëm sëñ Mountakha. sëñ Mountakha sëñ Mamour Diagne daaxi tiliw jaar sëñ Mamour Diagne bu Touba di gërëm ñi may jàppale Jamil Sam Seydou la may jox Jamil Sam di ma may xaalis Jamil Sam yaa baax yaa gore Baye Zal bu Pikine sama xarit Baye Zal Baye Zal borom Pikine Dame Ngor Serif wuru na bu Ngor daa ci liw na bu Ngor Sida fi ay dara bu Ngor xëy xam na ko bu baax Serif wuru na Balla Gaye xam na ko xëy ci liw ñoom laay bëreel ñoom laay bëreel <laughs> parce que Balla Gaye moo ne moom moo koy andi ñoom laay bëreel. ñoom laay bëreel. Serif wuru na waxal ak Serif wuru na na. na la sax yow. bala ngay bala ngay da taxaw attaqué. Salif wulu na. bala ngay nee na mooy ana liiru jaan. tax ñëw si liiru jaan. masi la sa comment daam joob ngor mbay joob patata ala njaay ngañ loo moom kenn du ngañ damay jox xaalis di ma jox protéine jox ma étope ne ma demal fu neex ci réew mi ngañ loo li neexu ci ngañ da nga lu neexut ah c'est fort li nga am ko la jaajëf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 xam nga jili jili kebe ñaara ko dab tur bi day na jili mbay san bëree ñu ko kebe ñaar ñi ko seex jili kebe ak sëñ Basiru waaye lii neexul ci tur mag tur yu mag yi waaye neexul ci jili kebe sëñ Basiru waaye ak jili kebe sëñ Basiru Diouf waaye lii neexul ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a image yu leer caméra yi nag jógewul Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer li lii neexut wasaare lam wasaare